Luk saar juróom gannaaw loolu yéesu di dem ca ay dëkk yu mag ak yu ndaw di waaraate ak di yégle xabaar bu baax bi jëm ci nguuru yàlla fukki taalibe ya ak ñaar ànd ak moom ak ay jigéen yu mu teqale woon ak rab te jële leen ci seeni wopp ñu di maryaama mi ñuy wooye maryaama magdala mi yéesu tàggale woon ak juróom ñaari rab saan jabaru ku ñuy wax kusa mi doon wattu alalu erod ak susaan ak ñeneen jigéen jigéen ñooñu ñoo doon joxe seen alal ngir dimbali yéesu ak ay taalibeem dëkk ak dëkk nit ñi dafa jóge jëm ci yéesu ba mbooloo mu bari dajaloo mu wax leen léeb wi dafa amoon beykat bu demoon ji bi muy saaw toolam nag lenn ci pepp mi wadd ci kaw yoon wi nit ñi joggi ci ci asamaan lekk ko lépp leneen wadd ci barab bu bari ay doj naka la sax rekk daldi wow ndaxte suuf si tooyul woon leneen nag wadd ci biir ay xaaxaam ñu saxandoo xaaxaam ya tànc ko li ci des dal ci suuf su baax sax nangu ba meññ téeméeri yoon lu ëpp la mu jiwoon ginnaaw loolu yéesu wax ak kàddu gu dëgër ne déglul bu baax yow mi am ay nopp taalibe yeesu yi laaj ko lu léeb woowu di tekki mu tontu ni leen may nañu leen ngeen xam mbooti nguuru yàlla waaye ñi ci des dama leen di wax ci ay léeb noonu la ngir ñuy xool te duñu mën a gis di dégg te duñu mën a xam lii la léebu baykat bi di tekki kàddug yàlla mooy jiwu wi ki féete ci yoon yi mooy ki dégg gannaaw gi seytaane dafay ñëw këf kàddu gi ñu def ci xolam ngir mu bañ a gëm te yàlla musal ko ki nekk ci barab bu bari ay doj mooy ki dégg kàddu gi ba noppi nangu ko ak mbég waaye wax ji saxul ci moom dina gëm ab diir waaye bu natt yu agsee mu daldi dàggeeku ki jot ci jiw wi ci xaaxam yi mooy ki dégg kàddu gi waaye nes tuuti soxla yi ak alal ak bànneexe àddina tànc ko ba du àgg ci mat ki jot ci jiwu wi ci suuf su baax si nag mooy ki dégg kàddu gi te denc ko ci xool bu baax bu gore te muñ ba jur njariñ kenn du tàllamp làmp dëpp ci leget walla mu di ko def ci ron lal daf koy wekk ngir mu leeral ñiy dugg amul dara luy kumpa lu ñu dul siiwal bés walla lu làqu lu ñu dul feeñal ba mu ne fànn seet leen bu baax ñu ngeen di dégloo kàddu gi ku am des na la dollil waaye ko amul des na nangu sax li nga xalaatoon ne am nga ko ba noppi noonu ndeyu yéesu ak ay rakkam ñëw seetsi ko waaye mënuñu woon agsi ci moom ndaxte nit ña dañoo bari am ku ko yëgal ne say yaay ak say rakk ñu ngi nii taxaw ci biti bëgg laa gis waaye mu daldi leen ne samay yaay ak samay rak ñoo ñiy déglu kàddu yàlla te di ko topp benn bés yeesu ànd na ak ay taalibeem dugg ci gaal mu ne leen nanu jàll dex gi noonu ñu dem bi ñuy dem nag yéesu daldi nelaw ngelaw lu am doole daldi ñëw yëngal dex gi gaal gi fees ak ndox ba ñu bëgg a suux noonu taalibe yi jege ci yéesu yee ko ne kilifa gi kilifa gi ñu ngiy dee ci kaw loolu yéesu jóg daldi gëdd ngelaw li ak duus yi lépp dal bani nem yeesu ne taalibe yi ana seen ngëm ñu daldi tiit te waaru naan ci seen biir kii moo di kan mi ngi jox ndigal ngelaw li ak ndox mi ñu koy déggal noonu ñu teer ca diwaanu waa seresa fa jàkkarloo ak diwaanu galile bi yeesu di wàcc ca gaal ga ku rab jàpp ca waa dëkk ba ñëw kar ko yàgg na def yaramu neen te dëkkul ca kër waaye ca sëg ya lay nekk bi mu gisee yeesu mu yuuxu daanu ci tànkam daldi xaacu ne yow yeesu doomi yàlla aji kawe ji loo may fexeel maa ngi lay ñaan nga bañ ma mbugal dafa wax loolu ndaxte yeesu santoon na rab wi mu génn ci moom rab wa dafa ko doon farale jàpp nit ñi daan nañu ko wattu di ko yeew ak ay càll la ak di ko jéng mu di leen dagg rab wi di ko xiir ci barab yu wéet noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ne coggol laa tudd dafa wax loolu ndaxte rab yu baree ko jàppoon rab yoo yoo ngi ko doon ñaan ngir mu bañ leen a sant ñu dem ca kàmb gu xóot gi fekk amoon na fa géttu mbaam xuux yu bari yuy for ca tund wa rab ya ñaan yéesu mu may leen ñu dugg mbaam xuux ya mu may leen ko noonu rab ya génn nit ka dugg mbaam xuux ya ñu daldi bartalu daanu ca dex ga lab sàmm ya gis li xew daw nettali ji mbir mi ca dëkk ba ak ca àll ba nit ñi génn ngir seetli li xew bi ñu agsee ca yéesu ñu fekk fa nit ka rab ya bàyyi woon toog ci kanam yéesu sol ay yére te ànd ak sagoom ñu daldi ragal ña fekke woon mbir ma nag nettali leen naka la yeesu wërale ki rab ya jàppoon ci kaw loolu waa diiwaanu sa bépp ragal ba ñaan yeesu mu jóge fa noonu yéesu dugg ca gaal gi di bëgg a dem nit ki yeesu tàggalewoon ak rab ya ñaan ko ngir ànd ak moom waaye yeesu woññi ko ne ko ñibbil nettali li la yàlla defal lépp noonu waa ji dem di wër dëkk ba yépp di fa yégle la ko yéesu defal bi yeesu dëppee dellu mboolo ma di ko teeru ndaxte ñépp a ngi ko doon xaar noonu nit ñëw tuddoon yayrus te nekk njiitu jàngu ba bi mu egsee mu daanu ci tànk yéesu saraxu ko mu ñëw këram ndaxte jenn doomam ju jigéen ji mu amoon képp te muy toll ci fukki at ak ñaar ma nga doon waaja dee bi yeesuy dem nit ñaa ngi doon buuxante di ko tànc amoon na nag ca mbooloo ma jigéen di xëpp deret diiru fukki at ak ñaar te kenn mënu ko woon a faj jigéen ja jige ci yeesu nag doxe ko gannaaw laal ca mbubbam te saa sa deret ji dal yéesu laaj nit ña ne ana laal ku nekk di miim noonu piyeer ne ko kilifa gi nit ñépp a ngi lay wër di la tànc wet gu nekk waaye yeesu ne am na ku ma laal ndaxte yéeg naa ne am na doole ju génn ci man te jigéen ji xam ne mënul woon a nëbb li mu def mu daldi daanu ci tànk yeesu di lox noonu mu nettali ci kanamu ñépp li taxoon mu laal yeesu ak ni mu wére ca saasa yeesu ne ko soxna si sa ngëm faj na la demal ci jàmm bi yéesu di wax nag am na ku jóge ca kër njiit la mu ñëw naan sa doom faatu na matatul ngay sonal kilifa gi yéesu dégg kàddu yooyu daldi ne njiit la bul tiit gëmal rekk te dina dundaat bi yeesu egsee ca kër ga nagul kenn duggaale moom ñu dul piyeer yowaana sak ak waajuri xale ba ña fa nekk ñépp di yuuxu ak di jooy xale bi noonu yeesu ne leen bàyyi leen seen jooy yi janq bi deewul day nelaw rekk waaye ñu di ko ñaawal ndaxte xamoon nañu ne dee na waaye yeesu jàpp loxo janq ba woo ko né ko xale bi jógal noonu ruuwu xale ba dellusiwaat mu daldi jóg ca saasa yeesu santaane ñu may ko mu lekk waa waajuri xale bi daldi waaru waaye yeesu tere leen ñu wax kenn li xew